da ngay toog yaa ngi may énervé. loo wax léegi. ma ne da nga war yow la nga action silence action. wax nga dëgg wax nga dëgg gën gisante kay. mais bu baax naka Hmm, ana xalé yi ak euh, ci ñu ci jamm baax waaw waaw ñu ngi ci tabaski bi xam nga rek diko ko waaj ndànk rek comme événement Sénégal am dañu bëgg événement xam nga buñ ci tolloo mooy loolu waaw waaw sa allah. loolu dañu bëgg événement. ay to moy lolu quoi sinon ça va. El Hadj waxaat ci Bamba. loolu laa wax man. nga. gaan perte nga man soxla de. léegoo man babal bàyyi woon lii de. waaye yow woon lii de ah ma war a xas lay lay entraîné loolu. dama ne la ay ay ay laa fi dégg. man moom dégg rek ma ñor. waaw ah, mais ni nga def ci été bi ah? macha allah ah yow kat moo lay solal. mais man fang la ah. dama lay béggee instant bi. dëgg la. mais dama gis nga yor weccit quoi. dama bëggoon nga wecc ma dama la seen ngay ñëw yor wecc nii bëggoon nga wecc ma. Ah. oui bu woon a dem waali nii xam nga dama bu ma dem demee dama war a baatare te li ma yor bëriwul daa ma gën a comprendre. 30 000 la de. 30 000 bëggoon nga wecc ma ko comme ça nii. 30 000 ah. waaw. 30 nag. ñi ngay doxantooyee gañe dafa rafet hmm? doon julli rek ma leen ma seulement di leen ñaar rek cambreur yi ñoom <laughs> Buradan sevgili de buz buz. Bunu bekliyorlar. tournage Kadiayo da ñëw tournage tey. da fëlaale. tey tey tey sa tournage tey spécial Cheikh Sarr nga ko tuddee. waaw yow dëgg naa toog waaw kon waxal ci bis bi kon. waaw mais dama ne tey da ñu xaar te xam ne tabaski bii. dinañ ko lay ci damay sànkal fu ngeen ne. ñoo ngi nii di ñëw dal seen kaw. Eh, aw saw dégg naa tey da ñëw ci spécial tabaski bi saa ci tournage. waa kon waxal ci bis bi kon. ah dégg lii. toog ah la tigresse <laughs> wuy ma dégg naa tey yaa ngi ci spécial tournage bi tey. xam ah, nga xale yi ah, kon baal ma dem sax ci kon li ñuy expliqué gars yi. Désé mooy expliqué nii déglu leen. wala leen dëkkandoo comme naa moom mooy la waaw mais ana ñi bëgg waa El Média ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen baalu àq bu baax te di leen baal àq di leen wax spécial tabaski ak waa El Vision ñoo ñëw nag di leen baalu àq man docteur Guèye Bamba maa ngi baalu ñëpp àq képp koo xamante ni mës naa def ci seen bi lu la naqari wala ma wax ci lu la naqari maa ngi lay baalu àq bu baax a baax di ñaan nga jéggal ma te yàlla tax te xam ne sama njuumte la di kontaan ci yéen aussi di leen wax ñu ngi jéggalu bu baax ci seen temps bi ngeen yàq ci El connexion bi ngeen yàq ci El Vision wu kóolu gi ngeen ñu wóolu lu ñu dugal ngeen koy njëkkante ñu ngi ci kontaan bu baax a baax di leen wax nag yàlla seen jàmm yàgg ñu di ko feetee at yu baree baree baree baree baree bëri di jégalu it sama clientèle yi maa ngi leen di jégalu di leen baalu àq yéen it bu baax a baax a baax di leen wax yéen ak waa El Vision Média xeex bi dee doog a commencé te du mës a jeex je vous love kontaane naa leen bu baax a baax jërë ngeen